Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ñu ngi ziar wér si jàmm ñu ngi ziar wér lépp jàmm wala si aja Baay Faal mala Modou waaw bu woon na ngeen Sibubeba. Yeye Baiba Tala Yazin Palmo Aja abona yanzu si bayan no akwai su notification am tan bayan ko fate bas furu fok non moy abonné bi bas len ko abonné waaw te ngeen partager ko tamit pour mu law waaw partager len ko waaw ñi jaar yer jam ba ay ñi ci jam manam দিয়ে পার্টি bus the wow. Ah, wow. to you,